السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي يولي ني لين دي نيو لين زيار سين بوك محمد امين سال اه، دي نيو غين سي لولو ني في وخون سي باج بوبو سي سوره الحق ني وخ ني مصحفي مانام ني دون بيند كامل بي دنج سي جوم وخون نان ني القران امون جومتي يالا كو سام با جومتي دو سي مسا ام واي سي بي ci ñiy jàng riwaayatu warsh dañ cee juum ci mbindin bi di juum di doon jiim ci njàngin wi waaye rek lu mu yàgg-yàgg-yàgg njuumti moom lu mu yàgg-yàgg dañ ko war a dabaatal rek lu mu yàgg-yàgg dañ ko war a dabaatal ñun ñëpp jàng nañ ci riwaayatu warsh ñi nga xam ne si ñooy jàng alquran waxarrik li warshin kulla saakini naaxirin saxiixin bi shakli lhamzi waxdifhu muskila moom lañ jàng ci Shaatibi jàng ci Ibnul Barri xarakatul hamzi li warchin tantaqil li saakini saxiixi qablul munfasil du qablal munfasil nag am na joxe katu ijaaza yoo xam ne si qablal munfasil lay wax te qablul qablu al munfasil léegi dañ ni warsh warsh dafa ni bépp baat bu ngeen gis ci alquran mujj ga mujj ga nekk masque ak wërngël maanaam ma ñu tuddee masque ak néeg mujj ga nekk masque ak wërngël nekk sukuun moo mujj ca baat ba baat ba ca tegu nag njaal bee ne a wala i wala u maanaam hamza moo xam hamzatu wasli la moo xam hamzatu qat'i la waaye nag na ci a tegu wala i wala u bu boobaa jëlal aga maanaam euh, masque masque ak xamsa ga masque ak tikkanti ngay jël jox ko masque jox ko la amoon wërngal da ngay dindi wërngal ga jël masque ga tikkanti ga am jox ko wërngal ga daal di dindi tikkanti ga ci waxin kon euh, watlu alayhim naba abnay xam nga masque wërngal googu nga teg ci aadama comme amoo ci tegu kon naba ab na yaadama qul taalaw atlu xam nga nee nga taalaw atlu nga ni qul taala watlu qul taala watlu zawaatay uklin zawaatay uklin nga ni zawaata yuklin zawaata yuklin min istabraqin comme min am na ci nga ni min istabraqin وإذ قالت أمة غني قالت تمة وإذ قال تمة فإن بغت فإن بغت إحداهما غإن فإن بغت إحداهما فإن بغت إحداهما نار حامية ألهاكم يعني نار حامية ألهاكم xaamiyatu nalhaakum wa amma bi nicmati rabbika fa xaddis alam nashrah nga ni fa xaddis alam nashrah wasjud waqtarib inna nga jël masque gi jox ko masque gi amoon néeg masque gi néeg gi mooy waqtarib binna anzalnaahu wa min aabaihim nga ni wa min aabaihim fa amma man uutiya nga ni fa amma man uutiya Uh, an uqtulu anfusakum an uqtulu nga ni an uqtulu anfusakum aw uxriju nga ni aw uxriju qul udcu llaha nga ni qul udcu llaha aw udcu rraxmaana nga ni aw udcu rraxmaana wa an ucbuduuni nga ni wa an ucbuduuni Abdou Saman buub nag nee na hamzatu wasli bokku ci nee na nee na hamzatu qat'i loolu amul ci benn téere bu dee bu dee hamzatu hamzatu qat'i rek la kon lu tax war si naan anuqtulu anfusakum lu tax mu naan awuxruju lu tax mu naan qul udu llaha aw udu rrahman lu tax mu naan wa anubuduni bu fekkee dafa ni dafa bëgg a wax ni warsh day damma hamzatu wasli comme kon nag léegi anisna il fulka xanaa kon warsh anusna il fulka lay wax aniitil qawma zalimina إيش كورش دران أنوت أنوت القوم الظالمين أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة خنا كن ورش دران أن اتبع بل افتراه خنا ورش كن دران بل افتراه إن ارتبتم خنا كن ورش دران إن ارتبتم ليدت كن lépp loo xam ne si dafa sukun ak mut ah wala i tegu ca moo xam hamza ba dafa nekk hamdatul أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن وأن اعبدوني أن اسمع الفلك أنيت القوم الظالمين أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا بلي روايتي رواية كيرسنك يلو ورث نيوم سكون دي استني جفنكو قاعدته إن ساكنان التقى يكسر ما سبق وإن يكن لينا fa xadfuhu àq ñaari sukun yu daje ñaari sukun yu daje kasral ba ko jiitu bu fekkente ni la la jiitu dafa nekk sukun mayit nga xasaf ko kon ñoom boo dire anis na il fulka ñoom ñëpp ci bokk yam kon eh, warsh hamza bu fekkee dafa tegu ci baat boo xam ne sukun moo ci mujj moo xam hamza ga hamzatu qat'i la wala muy hamzatu hamzatu qat'i comme euh, man uutiya fa in baxat ixdaahuma zawaatay uklin naba abnay aadama fa xaddis alam nashrah bu boobaa jëlal mask ak hamza ga jox ko sukun ga bu fekkente ni hamzatu wasli la kon comme an uqtulu anfusakum nga an uqtulu anfusakum aw uxriju nga ni قل ادعوا الله يعني قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن يعني أو ادعوا الرحمن وأن اعبدوا وأن اعبدوني يعني وأن اعبدوني كن ورش بنقل حركة الهمزة إلى الساكن سواء كانت الهمزة آه، همزة وصل ولا مي همزة قطع بفيك أنتني ni سمت Samad دفع بقى bëgg a wax ni hamzatu qat'i rek la kon bu fekkee dafa bëgg dañuy damm hamzatu wasli kon lu tax waxuñu baluf te reehu lu tax waxuñu anu tabi lan mooy teqale diggante anisnail fulka aniitil qawma zalimina anit tabi millata ibrahima xanifa bal te ak anuqtulu aw uxruju qul udcu llaha aw udcu wa anucbudu kon loolu mooy firndel ni warsh buy naqlu xarakatil hamza ila saakin سواء كانت الهمزة همزة وصل أو همزة قطع وليرنا لكن آه، نعم في سورة الحاقة خمس لول موي وحدنا دنيو ام تي سوره الحاقه آه، فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ها امقرؤ كتابيه اني لا نيو haa umu iqra'u kitaabiya daan ni inni léegi nag kon dañoo waroon ni haa umu iqra'u kitaabiya hinni parce lool lool loolu mooy qaayida ba waaye nag bu dee ci baat bii nag kitaabiya inni dañ ko cee settee ndax kitaabiya haa bii nga xam ne si moo ci mujj moom dafa bokkul ci baat bi haa u sakt la kooku li ko fi indi woon mooy bu pour booy taxaw nga noyyee ko comme nag dañ koy jàngale ci waslu bu boobaa am na ñoo xam ni dañ ni comme xaa gii xaa u sakt la la ko fi indi woon mooy taxaw te man taxawuma kon nag damay jàpp ni rek amu fi kon du ma naqlu damay damay taxqiq boobu nag moo gën a wér am ñoo xam ne dañ ni déedéet suñu qaayida mooy hamza euh, hamza ñëw na gannaaw sukuun saxiix kon dañuy dañuy toxal xarakatu hamza yóbbu ko ci sukun bu boobaa bu la neexee nga ni fa amma man uutiya kitaabahu bi yaminihi fa yaqulu haa umuqra'u kitaabiya hinni kitaabiya hinni buñ la laajee lu tax ngani ni wax si kat moo ni woon hamza bu fekkee dafa tegu ci sukun dañuy naqlu dañuy toxal masque nga yóbbu ko ci sukun ba te gis naa kitaabiya inni kon damay toxal masque inni yóbbu ko ci wax kitaabiya hinni waaye bu boobaa nag bañ koo toxal moo gën boo demee ci chaatibiya dafa ni wa naqlu ridan عن نافع وكتابية بالإسكان عن ورش أصح تقبلا مانام آه كتابية nga wax sukun ko wax kitaabiya inni bañ a naqlu loolu moo gën waaye nag bu fekkente ni dangaa ni kitaabiya inni nga ñëw boo ñëwee ba ci ma aghni anni halaka kon doo idgham parce que boo idghamee yow ictibaar nga haa u sakt bi que haa dañ koy idgham ci haa kon lu tax jëloo haa gi idgham ko ci haa nga ni déedéet parce que parce haa gi kon buñ la lu tax nga jël haa gi di ko idgham ci haa danga naan haa dañ koy idgham ci haa ñun la ah kon nag haa u maaliya kon danga ko euh, danga ko itibaar bu fekkee danga ko itibaar kon lu tax itibaaroo kitaabiya inni boo demee ci euh, jaamiul bayaan bu imaamu daani dafa ni fa man rawa taxqiqa fa man rawa taxqiqa في كتابه إني لزمه أن يقف على الهاء في ماليه وقفة لطيفة بنية واقف فيمتنع بذلك من أن يدغم في الهاء التي بعدها إمام الدارين كيف كوخم دفع التحقيق وخ كتابيه إني كوكو دنج كو دفع ورتي من فرش تهاء مالية دفع تهاء تهاء ويف بور بور رك داو إدغامي ما أغني عني مالية هلك عني سلطانية كن بوني ها مقرأ كتابية إني أمدراني ما أغني عني مالية هلك بس بو باب بولينا نياري قاعدة يبوكل كن إمام الداني نينا فمن روى التحقيق في كتابية إني لزمه أن يقف على الهاء في مالية وقفة لطيفة بنية واقف فيمتنع بذلك من أن يدغم في الهاء التي بعدها ومن روى, ومن روى الإلقاء أي النقل في كتابه إني لزمه أن يصلها ويدغمها في الهاء التي بعدها مالية هلك ما نم كيب كو خمني دفع جلتي ورش ما نم نقل ما نم تخل ماسكك ماسكك إني yóbbu ko ci kitaabiya wax kitaabiya hinni képp ko def kooku bu boobaa dafa war a jël haa'u maaliya idgham ko ci halaka parce que i'tibaar na haa'u sakt fee comme i'tibaar na ko ba naql xarakatul hamzi ilayha kon dafa war a i'tibaar haa'u maaliya ba idgham ko ci yooyu yëpp nag bëgg nañ leen cee indil ay safxa safxa bii nga xam ne si moom ngeen jàkkaar lool moom lañ miin a jàng ci réew mi moom lañ mën a jàng ci waras te moo ëpp fii dañ ci juum li ngeen gis ma rëdd ko rëdd wu xonq wi bu bu njëkk bi kitaabiya inni xool ko bu baax dafa maas kitaabiya maas ko ci sukun ba pare daal inni daal koy taxqiq loolu loolu nag moom moo gën a wér wa naqlu ridan an nafiin wa kitaabiya bi liskaani an warshin asaxu taqabula waaye nag bu boobaa imaamu daani nee jàpp te boo demee ci tànqix loola ca nekk boo demee ca alfatxu rahmaani bu bu jëm zuri moo ca nekk dafa ne képp koo xam ni dafa ne kitaabiya inni bañ a naqlu kooku lazimahu an yaqifa ala alhaa'i fi maaliya waqfatan latifatan bi niyati waaqifin lu mu ci jublu fa yamtaniu bi dalika min an yudgama fi lhaa'i allati baadaha waaye nag wa man rawal ilqaa képp koo xam ni dafa soloo maanaam pour naqlu te danañ leen indil page boobu page bii ñu indil moom njuumte la te danañ ko gën a leeral ci eh, beneen vidéo bi ñu indiwaat parce que safxa bii moom mooy bi nga xam ne si dafa dafa taxqiq bañ naqlu ba pare nag dem idgham warul woon idgham nag dafa waroon a izhaar kon njuumte la bu ko defee ñu xamee ko noonu eh, danañ leen di indilaal beneen vidéo gën leen indiwaat yeneen i firnde pour wan leen page bi nga xam ne si moom dafa dafa dafa naqlu ni muy idgaame dafa naqlu ni muy idgaame kon bii dafa taxqiq dafa waroon a izhaar mu dem idgaam ko parce que imaamu daani wax na ko fii wa man rawa taxqiqa fi kitaabiya inni lazimu an yaqifa ala alhaay fi maaliya waqfatan latifatan bi niyati waaqif fa yamtaniu bidalika min an yudgima fi lhaai allati baadaha kon dañuy yem ak yéen ci page bii rek bu ko defee danañ indil beneen page boo xam si moo ci tegu nga xam moom moom rawaa bil ilqaa'i maanaam bi naq fi kit euh, naq fi kitaabiya inni asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.